nag ñun ñu bëgg lu leer yaa xëy ba tax ñu ne du ñu jël xaalisu lobby ñun kenn newul suñu gannaaw amul kenn ku ñuy jox xaalis moo tax ñu nekk ci jafe-jafe ñu ne du ñu jël xaalisu lobby du ñu nangu kenn koo xam ne say mbir leerul di ñu jox xaalis lobby yi nag xam nga leen ay lobby ak homme d'affaires la yu bitim réew la wax ay lobby franc la ay lobi euh, lu ma bañ a tudd la ay ñu suñu bëggoon ñun ay milliards dañ koy nangu dañuy ñëw ne la léegi ñu jox la xaalis bu bëri waaye soo faloo il faut nga jox ma sa pétrole il faut nga jox ma sa port bi et cetera li tax ñenn ñi bu ñu faloo jël ay nit joxaat leen port bi dàq ay sénégalais jox leen port bi ñu ne nag ñun dañoo bëgg a suñu indépendance ba keroog bu ñuy dénk réew mi kenn duñu tënk kenn duñu jeng ci dara ñu mën a doxal dañu bëgg a doxale ñu ne kon ñun yaakaar nañu du dul ci sénégalais yi